ça soit la fois nga may gisal ay affaire parce que fii la toog naan ma da ngay accidenté accidenté boo xamante ne wax nga ma ko joxoo ma ay sarax lan la ma koy waxee ah ak yëpp laa la wax yëpp maanaam la ma koy waxee lan la ma naan su nekkee su nekkee daf may gisal ay ay ay gàllankoor yoo xamante ne ko waxee da waroon moytu oto yi boobu déedéet lan la ma lan la ma koy waxee léegi maara laa gën a mere si si sëriñ yëpp fu nekk xool sax mënatu ko si man barki rasulaay sa ko billaahi wallaahi taala bàyyi naa ko man sëñ leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen sargal di waaye émission bi tey du mën a séedee parce que ki ñu invité la ki ñu fekk si la du man du nit bu séedee man mbay mbay mbay nuyu naa la mbay nuyool ba pare sama sama yaay ñëpp tere nañ ma sit parce que ñu may génn dafa dafa bëri wax rek wax suba ba ten soo ngeen ñuy tiimale sama ay waay ay waay ay waay ay waay sonal ngeen ma nag wax nga ba pare wax nga ba pare ay si pitié hmm. mbay lan moo tax yow nga bëgg coow wala yow coow da laa jig coow bruit quoi da nga bëgg bruit bu bruit si la mbay foo toll da ngay bëgg ñu naan am mbay indi mbay mel na yow dong la yàlla sàkk ak ak nii nga to nii mel ni foo tol yaa ngi yaa ngi jéem a dugg si nit pour ngeen coow yàggul dara lii fan yii laa toog si benn vidéo nga dem si son yu place son yu xaw ma ñu dóor la foofu ba ngay bëgg a mbay mënoo yow moytu sa bopp mbay ñooñu waay bu ma wax ay ay kenn mooy kooku fay na de dese bi la woon quoi moom may wax ak ni au lieu nga tal sa tànk bi ngay tooñ quoi. non sama tànk bi mi ngi commencé léegi maa ngi dégg jàmm léegi. waaw. nekk ni su wax si ay affaire internet c'est que yéen xamalaa la yéen man daal affaire internet di jaaxal na ma ñuy xëy di wax di wax tiimale nit ñi di wax dox nañoo dox a dox a dox site internet dañoo dox a dox a dox dox dox seen tànk yi pënd pënd ah ñu tilima tilima tilim alors ñu ñëw si sa tànk bi mbay mbay euh, mbay sa tànk bi lii yow loo créé la woon wala dëgg la woon. waaw moom fa nekk fi nekk ni wër na àdduna ñëpp xam ne damaa defoon soog. dëgg la waaw waaw dëgg la kay def soog di di kii. Ah, parce dafa bëri woon bi mu ah, amee. ñu bëri ah, gëmuñu ko woon ñu bëri gëmuñu ko woon koo wax ñu ne la mbay dafa tàmm di def loolu. tàmm ma parce que xam nañ ni man sérieux wuma woon mais léegi dama commencé dama sérieux si réew parce que man sama dara si réewul woon quoi comprendre nga problème loolu la woon rek. mais lan moo tax yow nga nga accident bi am nga naan euh, idaale na la vidéo wax na yow da ngaa soog def choc ndax ni yi set pour lan loolu. man man loolu yaa ngi def choc xam nga am na wax yoo xam ne waxu euh, kii la ras la comprendre nga ah, nit dina def ay dina def choc ah, ba pare di di wax idaal filmé ba loolu. délégué moo wax loolu wut xamana la yow yow yow mën ngeen mën leen maa dimbali ak ak ak ak boobu ngir yàlla di ma dimbali ngir yàlla ak tur boobu. mais Mbaye xam nga lan laa la yëgal. dimbali leen ma yaay dimbali nit xam nga lu tax. délégué Amar dafa fekkee choc bi génn ay kayitu ordonnance ne carrément moom moo la ko jëndal jël carte d'identité dem tay la ko ca hôpital ba délégué Amar même bu fekkee benn geste la defal na la ko ci lu baax waroo toog di ko di ko wax li nga koy wax. waaw di ngeen ma dimbali ngir yàlla ak ak ak tur boobu dañuy dañuy dañuy waxtaan ci kii euh, euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi waa kay kooku sax waaw dañoo dañ maa tere ñu wax si tur bi sama waa kër gi nii tur boobu lañ may tere fi mu nekk nii kenn xamul Dakar la kenn xamul njambaan na foo génnee wax mu génn. non non tur boobu du ma ko wax déedéet billaahi na yàlla baal ma rek si si si wax jooju ah mu dimbali si kooku ngir yàlla. d'accord léegi léegi Aziz Ndiaye ak baay Ndiaye mi nga xam ne ku la xam-xam la ak ñoom alburax ñooñu. nan lañ taxaw si yow. samay xarit lañ ñu ngi si waar wa waaw ñu ngi tëgg ay combat fan yi incha allah ñooñu samay xarit lañ samay nit lañ waaw ba tey ñu ngi ñu ngi si jàmm. waaw samay moom nee na mu demee ci Aziz Aziz dafa ko ne mbay tàmm na di ñu def loolu di di di di di di def ay affaire dinañ moom dafa am problème te dara jot ko lu tax ngay def loolu mbay. waaw yow waaw du ngeen ma di ba tey ay waxu kooku la kooku du ngeen ma dimbali ngir yàlla defal ma ko morso fobee rek ay sànneen ma ko si géej gi du ngeen ma dimbali ngir yàlla oh c'est honteux waaw mais est-ce que tamit doo def comme li la sa xarit wax bu bouger ketchup dama koy dama koy nuyu de passage à chaque fois dama koy gis mu lay wax ne mbayi da ngaa war a xam sa bopp fuñ la woowul bu fa dem te ngay wàññi yenn milieu yi nga dem est-ce que tamit euh, ketchup waxul dëgg. xoolal sa bopp. dafa baax rek maa ngi koy nuyu dafa baax rek waaw ah, dafa baax rek mais xam naa àdduna léegi jeex na. léegi xam nga. waaw xam naa bu baax fu teg sama tànk. Hmm. Mhm. Andi Kouthia. Kouthia mi soo soo ñëwee suba léegi fekk ko hmm. su bàyyi ko fekk. d'accord parce que mooy sama wéetal. waaw waaw. mën nga ñu ñëwaatal si sa digganteek ak Birane Ndour euh, naka la dem fa jël la en charge te début bi dañ doon dégg am na ñeneen ñu ci doon dégg mais finalement yow dégguñu la nga wax ñooñu Birane rek nga ci dégg. mooy sama sëriñ nekk nii. léegi da nga xaaj ci sëñ Modou Kara. Hmm, xamatuma kenn Birane laa xam ne. ni mm-hmm. man Birane laa xam ne xaw ma kan. man Birane defal lu baax de da nga koy wax. laa xam ne wax dëgg yàlla xaw ma te ma kenn kenn kenn kenn kenn sama si si sama téléphone bi sax amatul ay numéro bi tax alma lañ xool alma alma samay numéro fi mu nekk nii mën naa kaa compter ñëpp laa si firme non non <laughs> xool ah <laughs> ah <laughs> mbay dañu ñëwaat ba ñu bëggoon nga ñëwaatal ñu tuuti tamit ci fee yi nga xam ne mooy bi choc bi amee. Mhm. bi nga demee hôpital. Mhm. dégg naa jot nga jaar ci hôpital yu bari dégg naa ñu wax ko. Mhm. bi nga demee hôpital nag nan la demee woon. parce que dama dégg ñu ne danga demoon ba sa tànk bi da doon commencé di yàqu. yàqu tànk bu yàqu ak ma nekk ak Birane Ndour mii ah. doomu Youssou nduur bii dina ba bàyyi ma yàq sama tànk bi mais jeexuñu la jël ñoom. non waaw waaw parce que dama faa fekkoon ay ñoo xamante ne ay ay un mois lañ fa def ay trois mois. Mm-hmm. waaw man sama ngor ak sama ak sama ñi nga xam ne ñoo ma taxaw oh. sama xale yu jigéen yu baax a baax yoo xamante ne dañ ma faa fekk bëgg ma docteur yi bëgg ma di ree xam nga mel ne parfois oh docteur yi baax. waaw xaw la naa leen faa mere nag ba ñu commencé laale mais après ñu ma mm-hmm. ndekete am na ñu fa def trois mois kenn laalu leen am na ku def man ma ñëw fa def fa deux mois jël ma. kon xam nga góorgóorlu naa góorgóorlu nañ góorgóorlu naa. waaw dara te yow ma fa woon affaire waaw coono nag bëri woon na trop trop mais ah co kii bi bi la quoi affaire li mu dafa de dafa demee nu demee quoi. mais sant yàlla waaw. ku ne gis na ne yow Mara Niass sa xarit la te Mara day gis lu ñëwagul yow xanaa sa soog moom gisu ko woon. non gis na dama ko woo bët ki dem nee naa ko ça soit dernière fois nga may gisal ay affaire parce que fii la toog. naan ma da ngay accidenté accidenté boo xamante ne wax nga ma ko joxoo ma ay sarax lan la ma koy waxee ah ak sëriñ yëpp laa la wax yëpp maanaam lan la koy waxee lan la ma naan su nekkee su nekkee daf may gisal ay ay ay gàllankoor yoo xamante ne ko waxee da waroon moytu oto yi boobu déedéet lan la ma lan la ma koy waxee léegi maara laa gën a mere si si sëriñ yëpp fu nekk nii xool sax mënut ko si man barki rasulaay fii sax dama ko tere maara ña sa xarit la demee non non barki rasulaay bàyyi naa ko billaahi wallaahi taala bàyyi naa ko man sëñ si mooy sama xarit mais mbay la moo tax yow nga mën a jëlaat jëlaate ndax yow daan nañ la gis ci Diop xaas lu ñu wax nga ne Ablaye Diop xaas yaa ma jaxase jële a jaxase dëkk bi yéen si di yéen a jaxase dëkk bi kalaaw damaa xam ñooñu yow Ablaye Diop xaas sax fuñ masaana ñëw fa lañ lay fekk c'est que c'est que man jugal ñibbi baax na barke rasulaay dagg naa ko billaahi rasulaay ma non bàyyi Mbaye sama dernière question naka nga gis sëriñ yi génn di wax coowul euh, dese jaaga bi non yéen së sëriñ yi si yéen si boppam yéen la ñu war a tëj yéen la ñu Sénégal journaliste la ñu war a tëj yéen la ñu war a tëj wala ñu ngàdd leen wala ki tëri si tuur leen ñuus leen a ñuusu ñuusu ñuus ñuus yéen yéen yéen journaliste yi billaahi ñu noqu leen noqu leen ba ngeen ba ngeen tëj seen site yi billaahi wala taala su dee ma ay président damay tëj seen site yi waaw tëj seen site yi sànni géej parce que yéen a dofloo sénégalais yi fi nekk nii ah sëñ ñeen sëriñ ñi ngeen di jël sëriñ les charlatans yi ngeen jël fenkat yi ñuulkat mm. yi jaxase waat sénégalais yi di jaxase sénégalais yi di jaxase ay ay kii ay ngeen leen di tàllal seen micro yi mu leen fay dégg naa dañ leen di fay cinquante cinquante mille ngeen jël vingt cinq mille ngeen jël teg leen trois cent ngeen jël am na sëriñ yoo xam ne dégg naa deux cent cinquante lañ leen fay ngeen daw jëli ah am na sëriñ yoo xam ne seen bopp mbay kenn woowu dañ leen fay yéen ñeen lañuy ñuy fay di yéen di ci boppam lañ war a ñuusa ñuusa ñuusa ñuusa ñuus doo leen bàyyi fenkat yi ngeen di jëli doo bàyyi fenkat yi ngeen di jëli c'est difficile xam nga ne site internet yi ñu ñu ay kilifa ñoo fa nekk. medun medun yaa ngi ni di saaga la taxaw ci yow yow eh. medun eh. Diouf waaw jugalem. yaa ngi dégg te yaa ngi ni lekk li laay wax seytaane yi ah? Ah, wax naa ah, internet yi te medun kilifa la medun kilifa du site internet. ba lu yi ngeen jël du ngeen leen bàyyi. mais site internet yi ngay yi ngeen jël du ngeen leen bàyyi ah sëriñ yi ngeen di jël du ngeen bàyyi. sëriñ du Mara Niass ngi nii wa gisal la accident mi ngi nii dammo. waxuma Mara Mara du du sax génn baay na génn fi mu nekk nii fi mu nekk nii kooku patron la. ay ñoom Serigne Cissé ñoom Serigne Cissé ay ay notable lañ léegi ay mut loolu la ñuy ñaanal comprendre nga mais sëriñu fenkat yi ngeen di jël ñu naan diw kii woo rey kii moo rey kii kii moo rey kii kii moo rey ja kii diw sa rakk bee la rey diw sa mag bee la rey faatu sa patron yaa rey sa patron kii sa patron sa rakk ku yaa ko rey ah yaa rey sa papa yaa rey sa mag ay waay sëriñ yooyu dañ leen dañ leen tëj ngir yàlla du ngeen bàyyi jël sëriñ yooyu yéen yéen du ngeen bàyyi jël sëriñ yii yi nga xamante ne fen nañoo fena fena fen fen seen gémmiñ yi ngi xasaw xullu xullu xullu xullu seen pokotaan yi xasaw barke alxuraan ko sa sangoo nañ bayra ba sangoo bayra di fen di sangoo bayra di fen ah match nekk nii am nga sëriñ kii match bi Sénégal bi woo leen nga ni nga nga leen ñaata duñu xam fu Sénégal féete sëñ daam moom bi ma ko laajee dana moom moom gisagul dara ci match bi xamagu ci dara waaw yow doo ma bàyyi ay ay sëriñ yi sëriñ kew sëriñ diw sëriñ kii sëriñ jaxatu ah sol ay garab waxal loo xam ci moom bala mu laa taal sëñ daam seet doo ma bàyyi yow kan mooy sëñ daam borom jinne yi kan mooy sëñ daam dafa am ay jinne doo ma bàyyi sëriñ boobu nga xamante ne théâtre lay def li ngeen ma leen bàyyi sëñ suñuy sëriñ yoo xam ne dañuy nekk si si si si yi billaay wallaay tallaay barke alxuraan ñan laa mën a woo ñu tëjal ma sit yi sit internet yi nan laa leen def ñu ñu tëj ko. général hmm. ah. général non général général ngir yàlla ngir yàlla général. ngir yàlla général ah, ngir yàlla. général général du ma gi dimbali ngeen tëj leen ma sit yi ngir yàlla tëjal leen ma sit yi ñu ngi yàq bi. sëriñ yi ñuy jàpp di jël sëriñ yi di fen di fen di fen billaay wallahi taala ku waxati si match Sénégal dañu leen noq noq noq noq noq ku waxati si dëju jàmbur dañu leen noq noq billaay wallahi taala oh. ak élection yi yëpp si yëpp ñu ngi siy wax di fen di fen di fen jabo topp si jigéen yi di namp di jabaru ci ci di namp rek di di di teg ah jabar jàmbur jabar bàyyi jabar jàmbur bàyyiwuñu jabar eh, eh, gel bàyyiwuñu caga bàyyiwu guddi gi daal dañuy wër almadi bi di taxawaalu di taxawaalu ba guddi. ñu tëdd li ngay wax nii est-ce que ñoo tuddal benn tur. yaa ngi tëdd xaw ah. am na benn sëriñ boo xam ne dama koo jàpp benn appartement mu jékki-jékki <laughs> daal ay yooyu. kan la fay seet ba quatre ah, ma bañ a moytu rek gis nga ku fi génneel fen billaahi may coupe du naa la yàq sa der ba sëriñ yëpp laa jàpp waa otage fi nekk nii ku ma wax am na ñoo xamante ne ñu ngi fen di nekk si jéeg yi di fanaan si jéeg yi di fanaan si si si si volet ah di wax lu leen neex si hôtel yi rek la fanaan nag ah hôtel yi rek rek rek rek rek fen rek rek di bëgg rey ay nit ñu naan ay kii moo rey kii kii moo rey diw kii yàqamte dëj am ba bu mbay tàggool sa dernier mot. Oh, oh, mbay. Oh, sëriñ yi timaam sëriñ ñu bon yàq dëkk dëkk bi yàq lañ dëkk bi ku génn ku ku dee ñu ne yaa rakam moo ko rey ku ku dee ñu ne papa moo rey sa papa ku dee sëriñ yi fen fen jaxase sénégalais yi jaxase sénégalais ak nit ñi ja mbay ñan ngay gërëm nga tëj man damaa soxla. gërëmuma kenn baax na. gën a bokk yàlla non sëriñ man man dama leen a mere site yi mm. site internet saa su la dernière fois da ngeen ñëw fi sonn naa sonn naa nag ci wax non bi kam seet si ma yow yow seet si ma waaye seet ma seet si ma yaa ngi nii bi nga gisul kenn moom nga gis de <laughs> xam nga yow nag <laughs> dangaa ko dee danga